maintenant buñ jógee ci loolu nañ wax ci ñi trahir Sonko Ousmane Sonko a été trahi par un de ses proches ku ko jege moo ko trahir te man xam naa kan la mais feeg man Sonko joxuma permission ma wax kan la duma ko wax feeg moom Sonko contacté ma pour laaj ma kan la du mu du ma ko tudd parce que accuser nit dafa xaw a doy waar quoi dafa xaw a yéeme nga jóg rek accuser nit quoi mais man toujours su may wax damay jox ay preuve toujours su may wax damay joxe ay preuve dama naan nii la demee nii la demee nii la demee kii moo ko def kii moo ko def kii moo ko def c'est vrai que du preuve yëpp lañ mën a publier am na preuve yoo xamante ni du pour ñi may seetaan quoi mais pour ñi nga xamante ni ñoom laay avertir ñu mel ni ay Sonko ñu mel ni ay keneen ak keneen ak keneen ak keneen ñooñu je les toujours envoyé les preuves ci li may wax. tu comprends maintenant man li may ñaan militant wu fii ak ñaa nga xamante ni dañoo bëgg Sonko ak ñi nga gëm Sonko ak ñi xamante ni injustice neexu leen te ñu koy xeex ku si nekk na nga teye nga kalm boo mënee retenir tuuti nga retenir ko choix léegi l'importance moom mooy nañu def benn benn benn benn benn benn benn benn benn cercle ñu boucler wu ci ci autour de Sonko ñu protéger ko ñu jàppale ko mais surtout li nga xamante ni moom moo tax munul woon faj ba waral mu dem ci salon boobu parce salon boobu yomb na te daf koy soxla ñun ci loolu lañ war a taxaw ba dootul soxla salon boobu noonu wala salon bu mel noonu je pense loolu moo ëpp importance moom mooy li Sonko soxla ah li Sonko soxla bu dee dafay dibi caaya da neex te munul génn di dem lekk dibi caaya ci mbedd mi na patriote fexe ba Sonko di am dibi caaya saa su amee envie dibi caaya man foofu laay waxe li ci xaw a doy waar mooy quand j'ai dit que yaa xam ci la bokk ju bëri i moo menacé ay partisans te effectivement loolu moo am xoolal femme avocate bi ñu accusé ex jabaru grand frère yaa xam mbay la ok kan moo ko takk femme bi en ce moment jabaru Félix Antoine Diome la ministre de l'intérieur mais takk suuf lañ ko takk maître Diome Dia ñun ñëpp xam ne bande bu mag la on le sait elle est bu weddee ma wax na ñëw porte ma ay tooxidoo na rek la def liggéey bu salta bu état bi war a def moom moom moo koy def si suuf ñoom ak seen clique googu ay xaritu Marième Faye Sall la ak ak yeneen femmes yoo xamante ni def naa ay publication yu dul jeex si ñoom ñoom ñëpp ñu ngi feeñ benn par benn dañoo laal ñëpp ñu ngi feeñ benn par te bu ñu amul sens ah bu ñu amul sens lu gën a garaaw moo nar a xew xoolal Macky Sall il a dafa fen mu ne mu mu ne xalif général bi xalif général des mourides mu ne ko moom li yëgu ko na xaraam yëgu ko que benn citoyen ñaari citoyen ñoo am problème benn citoyen porte plainte beneen citoyen nee amul kenn ci moom koo xamante ni ci la bokk wala ku ko jege ci la bokk loolu ay duuli neen la ay fen la Sidi Ahmed Mbaye ak ak ak bi nga xamante ni mouvement gëm sa bopp nga xamante ni ci ci ci ci ci coalition benn bokku yaakaar la bokk du neveu la parce que yaayu kii ak moom ñoo bokk ndaay ak baay booy bi xaritu kan la du xaritu Yakham Mbaye ci Yakham Mbaye lay fréquenté toujours tu vois donc ñoom ñëpp dañoo feeñ doo xoolee ñi si melaw mu mbay lañ sant ngeen baal ma quoi damay tooñ rek mbay mi quoi ci sant bi mais sant moom dëkkul fenn ku nekk mën ngaa nekk imbécile d'ailleurs beneen fii bi sax bi nga xamante ni mooy mancé ci salon bi bala sant comme man donc voilà amul ay affaire u sant quoi on est tous ay sénégalais quoi pour vous dire ni ñuy politiquer dafa salte léegi boo yeewul tuuti rek ñu jaxasal ak Ousmane Sonko nga bañ ko détesté ko nga ne ah, waa ji ndekk dafa am jabar di dem ci ay salon te bi nga xamante ni moom moo consulté euh, Adji Sarr fële ci hôpital euh, euh, euh, Séto bu Grand Yoff ah bi nee na ci 16 heures yu ñu wees ba Adji Sarr hôpital pour ñu consulter ko mu ne fukki ak juróomi benn waxtu ci yu ñu weesu résultat yi wane na ka Adji Sarr longoowul ak benn góor maanaam benn góor tëddeewu ko loolu rek nit bu normal loolu rek doy na preuve ne Ousmane Sonko lawul benn doomu aadama donc comme je di rek ñoom ay mbaam lañ ñoom xeex lañu xam xam nga bu ñëpp noppi woon kuul nii kenn réagirul defuñu benn investigation pour xam dëgg bi tey ñu yàq vie Ousmane Sonko donc buñ ko accepté buñ ko accepté quoi léegi nag beneen combat beneen combat bi nga xamante ni à part jàppale Ousmane Sonko mu am fond yu mu soxla beneen combat bi mooy ñu fexe ba bu ñu lever immunité parlementaire u Sonko parce que Sonko bés bu ñu lever immunité parlementaire am da leen leer ni Macky loi bu mu bëgg mu jàll dana jàll sans débat nañu fexe aussi ba xam yan député ñoo voté pour lever immunité parlementaire u Sonko comme ça ñu dem rendre leen visite ko siyaar leen parce que aussi dafay am solo nga dem siyaar leen quoi comprendre comme ça ñu xam ni que askan bi ñu ñu ngi leen di seetaan quoi ñu ngi leen di déglu ko waaw léegi beneen mbir mu bëggoon aussi wax c'est que neexul mais il faut ñu wax xam nga j'ai vu bi problème bi amee yenn sénégalais yi mer ba jóg taal ay quelque commerce man am na preuve yu leer nañ nii am naa ay commerce yuñ taal yoo xamante ni ñu ko taal waa APR lañ dañ leen yónni pour ñu taal ko comme ça ñu ne waa Pastef ñoo ko taal la xew Casamance tamit bu ngeen dégloo sama live ba la passé wax naa exactement seen plan nuñ ko déroulé maintenant appel bi may lancé patriote mooy il faut ñu xam ne yenn commerce France moomu ko di ngeen gis station Total nga gis enseigne bi ñu def station Total nga gis you know infrastructure bi et lépp mu nekk station Total quand on parle de Total automatiquement nit ñi dañ naan français yoo ko moom d'accord c'est une société française mais il faut ñun ñi xam station Total yi ngay gis Sénégal yëpp ay sénégalais ñoo ko moom mais dañuy liggéey ci turu et suñu société Total loolu la ñuy wax franchising cest daa dire boo amee xaalis da ngay dem Total ah ñu jox la licence pour nga mën a jaay seen produit ok dafa am ay condition nag yu ñuy teg condition yooyu noonu bu fekkee accomplir nga ko ñu jox la licence ngay jaay seen essence quoi mais station bi yow yaa koy moom emplacement bi yaa ko moom yaa koy tabax yow yaay def installation yëpp si sa xaalis léegi ngay jënd essence bi en gros ci ñoom de ko détaillé di ci gañ donc man j'ai am naa ay mbok yu am ay station essence ok si ça change total wala ça change sel sama sama propre famille am na ñu ci am comprendre donc tey boo leen taalee yooyu noonu ok ay alalu sénégalais e ngeen yàq te am na su ñoo xam ay patriote lañ am na su ñoo xamante ni defal nañ lu Sonko donc buñ jaawale tey boo taalee Auchan loolu c'est autre chose parce que Auchan amuñu franchising c'est-à-dire amuñu programme boobu noonu total am magasin Auchan bu ngeen gis France ko moom Auchan ko moom directement Carrefour magasin boo gis Auchan moo ko moom directement am na ci ay entreprise par exemple autoroute bi Sénac Auchan moo ko euh, France moo ko moom directement mais station yi muy Shell muy Total muy beneen ak beneen ay sénégalais moo moom que ça soit très clair ci ñi nga xamante ni dañu am intention wu Ah, yàq ay intérêt wu français yu nekk en Afrique wala au Sénégal ak yooyu au cas où dara xew station yu bokkuñu ci quoi bokkuñu ci ay parce que ay Sénégalais ñoo ñafe seen live moom ko quoi loolu aussi bëggoon naa ñu partage mais ëpp solo moom mooy nañ fexe ba am ba Sonko am fond yi mu soxla xool leen ci sama ci sama ci sama Facebook di ngeen gis lien yi bu ngeen bëggee jàppale Sonko directement dërëm demul sama poche parce que benn xaalis buy dem sama poche lépp ci compte Pastef lay dem ok beneen bi moo mooy nañu fexe ba top yi nekk ca jege Sonko mooy imbécile traître ñi ko xamante ni ñoom ñoo doon wax ah, Ah, état bi Sonko mu ngi fii mu ngi fii mu ngi dem fii mu ngi def lii mu ngi def lii mu ngi def lii ñooñu nañ fexe ba écarter leen nañ fexe ba ñu sori Sonko completement